Je suis très heureux de visiter aujourd'hui ce chantier presque achevé. yéen étudiants yi maa ngi leen di xamal ni am naa mbégte lool ci visite bi ma amal ci chantier bi nga xam ne daanaka pare na ak campus bu Kaolack dinañu jeexal travaux yi ci nu mu gën a gaawee inauguration bi dinañ ko amal fii ñetti weer université bi lu am solo la ndax tàmbali na ay enseignement am ci bërëb yoo xam ne dañ ko àbboon waaye fii ay weer rek lépp dina yemb dinañu taxawal itam ay pavillon yoo xam ne ñooy amal hébergement étudiants yi fu mu nekk nii sax ñu ngi defar lu toll ci junniy lal yoo xam ne du yàgg dara mu ñëw kon may dalal seen xele di leen wax ni seen enseignement bi di ngeen ko amal ci condition yu baax li ma ci dolli mooy di leen wax ni ngeen bàyyi grève yi nga xam ne amul benn njëriñ ndax dund étudiant dund bu gàtt la. leneen itam dinaa ko ci dolli benn pàcc ci terrain yi dinañ ko jagleel collectivité bi mu tollu ci cent cinquante hectares dinañ xool itam affectation yi niñ koy amalee. les cent cinquante seront restitués à la communauté